Bora! લેબુ લાવતા નો લેબુ લેબુ લેબુ નવ સત્ર રૂપિયા બાગ ગણતના

Sudah 你娘们，你家哥们儿怎么这么爱吹牛？我让你，我让你，我让你。

ko gisee noonu mbokk internet Siweul Ko TV Mame Diarra Fam Mame Fam ngi ak waaw comme ni nga gisee noonu maam Ndiaye Fam mu ngi noonu waaw maam Ndiaye Fam mu ngi noonu mu ngi jël photo mu ngi jël photo waaw mu ngi noonu moom Aziz Ndiaye lii rafet na am na mu ngi laajte baay pour mu jël photo Thank vâng, you. Vâng. This is an idol. Thank you. ma bëgg na ma bëgg kii ba pare ma wax la benn affaire. waaw ko nangu si nag yu baax. waaw moo tax wane sa matériel mu génn. Eh. fekk la ci sa xew wane ko. maa ko du bàyyi benn tra. wala barki dem barki dem na ko ne dama ko fa kër la ni ko xale bu la tànnaat ci kooku miis a miis nga noonu tey mu ngi nuyoo déggal mairie mairie nee nañ kontaan nañ mairie nee nañ kontaan nañ mis nee nañ lekk nañ naan nañ Mais mis temwanyan zini lo c'est vrai. baal ma rek ngir internet ci Equivoque TV comme ni ñu koy defee rek ñu ngi toog ak Mère ndaw si gàmmu Aziz Ndiaye kër Aziz Ndiaye Mère Ndao nuyu nañu. ñu ngi leen di fay di leen nuyu di leen siyaar di jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla ak yonent ba barke Seydina Mohamed daje ba yàlla buy suñu suñu mujj daje di ñaanal El Hadj fa mu tëdd ci xalxuus yàlla nay xam sedd guy lam doon def ci mbaax yàlla koo fekk dara ciy sëy naa ma barke suñu Babacar Si mi ñu yaakaar mais fan nga jóge ñëw fi géejawaay géejawaay Korniche si géejawaay yu ba nga jóge de walaa jóge buntu kër Aala Njaay laa dëkkal waaw nun li leen ci gàmmu gi mooy yàlla ak yonent ba ak dëkkandoo ju yàgg Aala Njaay nag nekkoon suñu kilifa ñu bokk nekk géej waaye amuk bokk amuk xarit amuk kóllëre gàmb gi noonu nag nun ay morit lanu mm-hmm. waaye boo gisee defe naa ne neenu gàmb bi kër gee ba la gën noo ngi fi xam nga lu ko waral dëkkandoo ji yàgg ak bokk ak kóllëre ak baaxu àlla jaare njaay tànk yooyu lañu dox ba la gën moo fi bàyyi mm-hmm. yàlla dogal xujaat di sunu kóllëre mm-hmm. di sunu xat di sunu doomi ndey Abdou Aziz mi nag jur ko ndax géej waaye la juddu suñu loxo te booba nag muy def lu baax. def lu baax def lu baax moo waral mbooloo mi ngeen gis leen fi ñu ne dem ko foo gàmmoo. a day topp tànk kool moo fi indi ba nag yi. Mm-hmm. as na di xale bu baax bu neex a jur ku seen am am Cees Njaay fukki Cees Njaay. dama ne géej yooyu ba amoon Cees Njaay fukk. Mm-hmm. kon nun meeri at ma dañuy muur dem Màkka. ndax am na yéene ji am na cofeel gi am na yar bi am na teggin am na taalibe gi. Mm-hmm. as na di doom ju baax. muy def lu baax ba koor jotee dana dul suukar dana ceeb dana dul dawlin am yàqu ci dara tabaski muy joxe ay xar tabaski mm-hmm. di jox meeri ay fukki junni di yewal paayi ay xar tamxaar dima naa ko ñëw géejaway fekk nag yeewe mu jox ay nag loolu lépp Aziz mu ngi koy def biir géej waay lu mbàkki barke xaadim Moustapha loolu jër lu wax nu amut te ndeyam yàqu ci dara mm-hmm. Ah, ay rakkam yàqu ci dara famille bi yàqu ci dara kon dañuy sant di ñaal Abdoulaye Ndiaye daal lu man ren bu déwénee yàlla na mën lu ko fanam yàlla na gudd yàlla sut alaaji Aala Ndiaye aw fan barke ba ma jigéen yoroon mu ñëw ci Aala Ndiaye yàlla na ko gën a tuur ci Abdoulaye njaay ak i magam ak i rakkam dañ koy ñaal jàmm rek bi sax te saawaan te baawaan ndax xale am na lu am am na ñu ko ëppale de mhm. waaye amuñu xool def li muy def waaye baayam noonu la yaayam noonu la mel géejaway dañuy ànd ak moom muy def lu baax ca koñ ba di jur di jur njabootam jur njabootu jàmbur yaayam jurul njabootam ne de daa boole ay doom ak doomi jàmbur ñëpp la coiffé ca koñ mu Adja Khoudia Diop dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal jàmm ñaanal fanam gudd ak wér amiin sànq bu bu fi miis dugg si sànq di leen nuyu ngeen ngeen koy waxal lu baax si jour gàmb waaw miis mooy aaw Aziz moo fa jëkk mooy ñaaru Aziz tey ñaanal maam Binta Awa Aziz Ndiaye yàlla xippee àjjana xale bu am yar bu ami teggin bu déggal nu Alaaji Ala Ndiaye déggal Adja Xuja Diop déggal Abdou Si Ndiaye borom këram kon bi mis ñëw dafa topp ci tànki maam Binta dañ koy ñaanal moom itam fanam gudd wér njaboot gi xam la ko maam Binta bàyyil ak njabootam liñ ci yéene mu yeggale ko ci ndax xam koy mis na ku baax la jigéen bu yaatoo rek amatu sikk te mis dafa yaatu ku la ku yaatal ku man a joxe ñam te loolu ku fekk jigéen bàyyi ko ci mm-hmm. loolu lañ xam ci nis mm-hmm. rakam Aïcha soo koy conseil lan nga koy conseil xanaa bu ñëwee rek to gën a na jëkk a topp ci gorom goroom ku baax la ajaa xujj ku baax la mm-hmm. su ko déggalee ni mis déggalee ajaa jóob doom benn problème ci kër gi ngi la guñ ko waaye mi ngi taam mi ngi def lu baax waaw bu fi déggee indi fi ndox ay lépp ñëpp kontaan ñëpp kontaan nañ ci moom kontaan ci aase kontaan ci bitti bi bitti ñoom ñëpp dañu kontaan yal na yàlla defal jàmm ak seen borom kër kontaan ci ñoom jaajëf laay laay laay maxtaar maa ngi si maa ngi sant yàlla bu baax ñu fekk la kër Aziz Ndiaye nga ñëw dalal si ko yow yi laay ni sax dañoo ñëw kër Aziz Ndiaye waaw ndax man damaa bokk ci Aziz yaayam Aziz maa maa jëkk nekk impaañam Cheikh Diop maa soxna Cheikh Diop rek nag nekk nit ku baax Adja Diop nekk sama yaay bëggal ma boppam gàmb gu jot mu ne ma aju ñëwal nga gàmbu si ma bàyyi laa yéen i Cambérène géey nga xam ne lépp fa la ñëw Tiwaawoon gii xam nga ni kon soppee waral mu nekk sama yaay ju baax mhm. Aziz Ndiaye nag moom dafa nekk nit ku baax man dama koy ñaanal moom ak baay mhm. ci barke maa di yokk isaa mu tedd bi ndax appel bu jubsee bu ma ñëwee ni que Aziz damay appel mhm. mu ni ma ajilaay da appel waaw ba mu neex bàyyi ni ma ajilaay ma ne bàyyi damay appel mun ma ajilaay dangay appel yëkkite raa nga jox ma. na dama koy ñaanal ci barke di ak Issa lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ak sëñ Babacar bu mu gëm. seen baay ba yàlla nañu ko sut fan. ndax seen baay ku baax la woon. su ma ko masaan ñëw di ko jaay jën Pa Alé Ndiaye lu ma ko wax moom lay fay te su ma gëstoo mun ma lay laay ma gëstu mun ma téer maa fay li lii maa la ko jox xanaa loolu dara fayu ko. yàlla nañ ko yàgg di def fii ci Tiwaawan kii sa seen yaay nag dama koy ñaanal Adja Khoudia Diop yàlla na ay fanam gudd mu dund ba ay doomam di ko raamal yaa ngi may yàlla bu kenn séddale ci ginnaawam nit ku baax la nit ku yiir njaboot la nag su ma nee ne Adja Khoudia am na lu mat ñaar fukki turandoo mënoo doo ko gëm. nga ni ma barki Seydina man aji laay maa ko wax ndax mbaaxam. waaw kay. li mu yor ci turandoo mënuma la ko nettali ndax mbaax ku ne jox na ko cër ku ne ku ko gis sa cëral ko ndax mbaaxam moo ko waral kon nag njabootam gi maa mun ko yàlla bu kenn seddal yàlla na dund dund dund dund ba dund sàppi mu daa ko dem ni mu ko neexee àjjana sax ñu gis Miss Ndiaye dugg fii nuyu leen saafoontoog yéen ngeen waxal ko yu baax waaw ndax Miss moom dafay suñu goro bu baax sama goro bu baax la ndax maman mii di doomu Aziz biñ koy mayee indi ko Cambérène Liss dafa jàkkaarloog waa Cambérène jàkkaarloog Alassane ak seen i sangay tedda yi def ak ñoom lu baax dañ koy ñaanal ak jëkkëram bi yàlla na ko yàlla bàyyeeg moom ak lépp lu mu ci bëggee yàlla na ko yàlla defal ci barke Baye Laye ak Seydi kontaan nañ ci moom nag Miss bu baax a baax man Adji Laye man kontaan naa ci moom nee na bu ñëwee fii di ma goro loolu rek doy na. waaw goro rek la may wax man ko waa man maay sa goro. ndax sa doom jooju nga jël jox ma jox bàyyi abu mu takk ka te sangaye la bokk ñoom seen maam lañu yaakaar ëllëg yow xiyaame seen maam moniteur xanaa loolu doy na kontaan na gàmbu gi nag yàlla nañ koy def ay ati at te kenn bañ a manqué ci barke Baye Laye ak Seydi man damaa kontaan Aziz doomu ndayam kontaan na ci moom aji laay damaa bëgg ci ñoom ci ñëpp nag ci lu xuj jur rek kontaan naa ci ñoom. ci barki sëy naa li maam. sama copain Baye loo koy wax. kontaan borom ñaari galon yi. góorgóorlu rek bàyyi moom borom baax la moom. di bëgg ci moom rek yàlla bàyyi ko ñaari soxna bi mu ba nekk ak ñoom nekkin bu rafet ndax bàyyi borom baax la. man daal kontaan naa ci waa kër xuj a naa li maam. Eh, eh pare, pare. pare lo tagli, ma guarda dara. Eh, eh, eh, eh. Eh. eh, eh. Yeah. Ndiaye mu ngi noonu di joxe añ si si ay jëkkëram gis ngeen loolu ndeysaan Thank you. Vamos, vamos, vamos. gàmm si kër Aziz Ndiaye. ñun Mbour. waaw. Ah? Ah? waaw ah, Mbour nga. mais tey nan nga gisee gàmm gi lekk yi naan yi lépp Aziz Ndiaye def ko mën rafet. macha allah dara manqué woon lépp benn. lan ngay conseillé jeunesse bi. jeunesse bi ah gëm suñu bopp rek liggéey ndax liggéey moom mooy lépp. yow moo tax nga dal fi man ah mu benn cousin bu ñu naan Ahmed Diarra moo ma fi sama cousin. bu timit waxal. Ahmed Diarra sama cousin. Ah, <laughs> waaw. ah allah rek yàlla na yàlla def mu yokk. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm rek. yokk fay nañ leen am. waaye yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm bu baax mais baaxee ba nu nga def si gàmm gi da ngaa sañse. non non xeebu moo ko def. yëngal nga sañse. ah fan nga kan moo tax nga dal sama xarit bu baax bi moo tax ma dal fii. Mariette. Mariette waaw. ma ne kon ñu ngi lay bëggee bu baax. waaw ñu ngi ñu ngi koy bëggee kay. waaw <laughs> gisee gàmm gi Aziz Ndiaye def si ay millions yu bëri. ah macha allah neex na moom vraiment kontaan nañ ci moom bu baax. noo gisee tamit Miss parce que su ba tey ñu ngi koy gis waañ bi ñu ngi koy gis fépp aussi. ah Miss moom macha allah vraiment nit ku baax la. ana Aïcha Rousseau. ah Aïcha man moom gisaguma ko. non non. yow àndoog biti. <laughs> non non ànduma biti de. Mbour laa jël fii ñoom ñu sañse si gàmm gi ma ne nuyu nañu. maa ngi lay fay. maa ngi lay waaw. lii neex dara manqué wul moom macha allah. lan ngay wax Abdou Aziz Ndiaye. li mu mën ren mu mën ko ay at at yaa ma gën a xam dañ koy ñaanal rek am ñu fayam. Hmm. dara manqué wu fi barki yàlla. suba ba tey ñu gis Miss Ndiaye di joxe ay berne yow loolu ngay wax Miss Ndiaye ak lan kàddu nga koy dégg. li mu commencé nii mu continuer ko rek. góonne ko ca kaw ca kanam rek kontaan nañ ci moom macha allah. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Fabinta bint ak ndey ak baay mën nañ ko wax ki nga xam ne moo di Abdoul Aziz Ala Ndiaye ñu nekk ci fii ci biir këram mbokk yi ndax noonu di Siweulko TV ak li nga xam ne moo di Dakar Live TV ñu fas yéene lang waxtaan ak moom Fa maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi delloo nuyoo di la ziar di nuyu ñëpp di nuyu moo ne anti ñuy waaw sànce nga de wax nañ la. merci beaucoup dañuy gaamu li dañuy def nii pour yàq reer rek ci kanam. Hmm. Hmm. mais bu ma doon ñëwal euh, bokk gi nga xam ne bokk nga ko Aziz Ndiaye tey lan nga ma ci wax. waaw Aziz Ndiaye dama ne bokk ak moom du gàcce. bokk ak lu ñuy di comme ça bokk ak moom gàcce. te macha allah ñëpp bëgg nañoo bokk ak moom. na Sénégal fi dama naan Sénégal dama naan àdduna Aziz moonu la. àdduna la na parce que Sénégal boo baaxee ñëpp bëgg a bokk ak te Aziz Ndiaye macha allah. dañoo bokk lépp mu nekk nag euh, ku nit ku baax nag exemple ku bëgg ay rakkam nag ku jàppale ay rakkam ku bëgg fameem nag ku mën a sonn ci ay mbokkam mooy Abdou Aziz Ndiaye baax na bëgg na ñëpp tey boo ko fekkul ak da nga naan kii xale la da ah, parce que dafa oyof da ah, parce que nit ñi mën nañoo gis nit ci télé ñu jàppale benn genre nit nit kese la nit ko oyof nit ko baax li ma ko ñaanal mooy gudd fan Aziz ma du ma ko ñaanal leen gudd fan laa koy ñaanal ndax parce que dama naan lii muy def ni yombul de ndax parce que lii suñu mam ma jigéen la commencé woon ñuy dem tey ba sama baay di ko def ba génn àdduna te avant sama baay di génn àdduna Aziz Ndiaye jël na téej bi ci moom ne ko papa mu ko am ko téej bi laal suuf mu continué te macha allah te lii day law ndax parce que ne lii moom nekku lu ndaw. ñu gis ne chaque année Aziz Ndiaye gën a wane wanewaat boppam ci li nga xam ne moo di gàmmu gi bu daan def euh, cinquante année bu ñëw mu gën a def cent pour cent ren ñu gis mu ëppalee sax la mu daan def ak boole ci rakkaaju naka nga jàngal loolu loolu année bu ne day yokk ba xam ngeen loolu hmm? at mu ne bu ñu leen def 100 200 cent lañ jëm bu ñu def 200 at bu ñu jëlee dañuy wax 300. na parce que yoonu sëñ Babacar kenn du ci nekk dellu ginnaaw de déedéet yoonu sëñ Babacar ku ci nekk kanam nga jëm amul dellu ginnaaw amul tànk ginnaaw tànk kanam la am noo gisee Miss Ndiaye depuis si suba mu nekk ci waañ bi ci waañ bi kooku moom jàmbaar fekk tëdd la kooku jàmbaar la macha allah nag parce que da nga laal foo war a laal Miss dem nañ fi 10 jours maanaam moom ci yaawoon kër gi maa ngi moom. moom Miss Ndiaye moom Miss Ndiaye 10 jours. muy bale. mu nekk jéeg bu oyof nag. dama naan jéegu njaayeen macha allah ñun amuñu jéeg bu bon. ñu doom bàyyaale amuñu jéeg bon macha allah suñ jéeg mais Miss Ndiaye jàmbaar la nag. boobu ba léegi fu tax mu bale te bu ko neexoon toog ne eh defal ma dara te day jug fu tax mu bale fu tax mu fa beere bu dara manqué barke alxuraan kam démb dama toog mu yëkkat xaar ba ne ma dawal jënd ay palaat. man ko mis plat yi bari na mun ma dede dawal rek na lepp bari ta bu ko nekhon day sax xaar jeukeram mais dafa genn ci xaas bopam jox ma ne ma demal jeunt lolou day xana jigen bax mo koy def wallaahi Aziz. tay da ñew ci moom ne ko ok mis. wa na parce ya ñaata mbolo xolal li fi nek bari na torop ak li nek ci mbedd ma. bari na torop nga togal biir keur ba togalé jaña mbedd ma. bu nekkon jigen ju bon du ko def na parce que góor mu na am lu ne gaañ ju am jigen ju baax. waaye macha allah jabaram yàqu ci dara hmm. ay soxnaam yàqu ci dara mi tamit ni mu def noonu la rakkam def Aïcha. moom Aïcha foog nga ñëw ci moom. Aïcha moom indi na fi teraanga ju bari. waaye gisaguñ na teraanga ju bari. loolu la indi na fi lépp macha allah mu ñëw nag bootu ci kaw miis parce que nit ñi ñu di wax. mais Aïcha dafa ñëw bootu ci kaw miis mooy yaayam mooy papam mooy lépp ëppante wuñ ñoom ñaar. lu mi Aïcha def day tàggu miis miis lu mu def day tàggu Aïcha. ma gis sa mag Aziz Ndiaye def benn vidéo ne ren laa def ci gàmmu gi lu kenn mësul gis di fanaanoo ñaari jabar sa Miss fii ak Aïssa fii. ah loolu moom bu ko waxee xëy na moom vidéo la duma ci sori. Aziz daa mel ni kontaan na daa ah, na. ah parce que lii mbégte la nee naa woote teg ses yomb nag mënoo gis nit ñi def mais da woote ay nit ñëw defala la lépp na parce que dama naan Aziz xale la ba pare def lii yomb di jël ay millions di ko def di ko def ci lekk diko def ñaar ba pare yëkkati jox ay rakam ne na solo leen lo leen solo doyut billahi mais mais des fois du ngeen jot yenn euh, commentaire yu négatif yi ñu ci bari naan ñi gamu dañuy rax di ci def naka sudul non ñi naan euh, ki dañuy puukarewu ci gamu gek yoy non message bu ngeen koy jot nu mu leen puukarewu ñu na parce que guddi Seydina Mohamed loo jëdd puukare amul puukare ñi ñuy wax négatif ñom la rek ñun la dañuy béeli kafré lo lañ xam waaw di ñaanal tamit sama frère massa ta ndjay lu jug ndjak nak moy ndjak kooku Baye Alé dem na waaye Baye Alé dem na parce que mooy Baye Alé taxaw na taxaw bu rafet taxawaay na taxawaay papa macha allah uuf ay rakkam nag uuf ay rakkam bëgg ay rakkam dañ koy ñaanal mu suuf suñu papa ja fan loolu lañ koy ñaanal Massa Ndiaye ñoon ma tuuti ci Baye Baye tamit topp na ci ginnaaw ki nga xam ne moo di euh, Aziz waaye moom tamit fu Aziz baatere mu ko ci loolu la dama naan Aziz ak Baye ngeen gis mais ñun famille bi da ca kaw ba ci suuf ñëpp benn lañ la yeer lu nekk ci ku mag moo ngi ci ku ndaw te lu nek ci ku ndaw ki mu ngi ci ku mag ki xam naa fa muy bàyyi àlla macha allah say lañ say bo xam yalla bu mu tass yalla bu mu jox so lolou lañuy ñaan. tak tak ñaarel ñaarel ñaarel njëf ci famille Ndiaye lañ ko gisé ah waaw lolou deug na mom ah. ah ñëpp dañuy am jaba waaw. waaye daari indi ñaarel ah mais ah ba ñaarel soxna la rek ñun ñëpp. waaw soxna la moom macha allah mu nek mu nek soxna bu baax mom tamit. ngay dégg. Aziz moom du ma ko dénk sax dara. sa deret du ma ko dénk dara amul ko dénk dara. deret la de. ndax li ci xol yàlla xam na. billaay wallaay. gudd fan déggoo ma la gudd fan laa ko ñaan ak wér. gudd fan rek laa ko ñaan ak wér. billahi loolu laa koy ñaanal defal defal ko jàmm. jërëjëf yow amiin jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi ñuy suivre fii ci à travers euh, Siweul ko TV ak li nga xam ne moo di Dakar Live TV ñu ngi toog xale bi nga xam ne ne naa la euh, bokk na ci ñi nga xam ne ay invité lañ waaye invité ñi nga xam ne ku ci mel ni Aïssa Rasoul waaye invité ku ci mel ni Baye aussi ak ki nga xam ne moo di Aziz Ale Ndiaye ñu fekk ko fii nga xam ne moo di guddi seydinaa Mouhamed ñuy waajal li nga xam ne moo di guddi gi waaye laataay loolu dama koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk yi yooyu suivre si maa ngi lay nuyu. maa ngi am nga jàmm. maa nga jógee Parcelles Assainies. Parcelles Assainies. waaw mais xale bi li nga sant mbaa xeeboo ko. xeebu ma ko moom. li ma lay njëkk laaj mooy euh, tey lan nga ressentir ci li nga xam ne moo di guddik Seydina Mouhamed bi nga xam ne moom nga déplacé woo Dakar ba ci waaw. ah xanaa mbégte mbégte moom macha allah ñu ñëw fii kër Aziz manqué dara dara dara ñoo ngi tëdd fu neex. lekk ba suur naan ba affaire yi daal lépp macha tout bien première deuxième question aussi euh, euh, tay lan ngay mën wax ki nga Aziz Ndiaye ci jëf yi nga xam jëf na ci gàmmu gi ak euh, li nga xam ne doon joxe muy ay ay ci mën di ah borom xol rek def parce que woo ay nit jox leen ñu fu jox leen ñu lekk ba suur naan ba màndi manqué ñu dara dara dara ñu koy sant di ko gërëm bu baax di ko ñaanal ñu koy fekkee ati at yu bari bari incha allah. mais yow daa mel ni bëccëg gi doo génn ndax tey tey suba gisuma la si pourtant génnoon na. mu doon génn. non si suba génnoon naa ba sañse. Hmm. waaw. bii mooy ñaata sañse. troisième. yaa ci trois sañse. waaw. jeexal nga wala pare ko. soo leen bëggee ma yemale ko fi de wala ma dolli. boo bu fi yemee gàmm gi jeexagul fajar lañ jëm. kon ci kanam ñu kiy waat ñu sañ sawaat beneen. bu dàq bi bu dàq bi. waaw mais ñi naan da nga nuroog Aïcha Rasoul mais c'est vrai da ngeen am trace da ngeen a nuroo naan sa rakk la ñi naan sa xarit la ñi naan da ngeen a bokk. bu ma ñëwee ba tey de ñu ngi ma koy wax mais bokkuñ dara nag. bokkuñ dara. kon kan doomu Aziz. doomu Aziz waaw. te mu nekk bu baax sama xarit bu baax macha allah. da ngeen a yàgg. pas tellement mais dafa baax rek loolu laa mën a seedeel. Mm-hmm. mais tey yan ngay euh, yan euh, euh, retours ngay mën a jot ci li nga xam ne mooy commentaire négatif yi nga xam ne des fois dañ koy dégg ci ñu ci bëri Sénégalais yi xam nga moom des fois boo defee lu baax ñu wax boo defee lu négatif tamit ñu wax ñu naan tey gàmm gi ñu ci bari dañ ci utaale buzz ak genre yooyu noonu. ah Sénégal boo defee ñu wax boo deful xanaa da nga leen di bàyyi rek parce que TikTok moom surtout TikTok da nga fay gis lu nekk ay surtout commentaire yu négatif da ngay gis ñoo xam ne dañuy am seen connexion bu doy pour kase di dugg si commentaire yi di wax lu seen yoon nekkul mais bon da ngay def jamono fu rek def lu sa euh, lu la waay waxal moom boppam. mais boo ko góoboon noo tudd madame ou mademoiselle. mademoiselle Seck. mademoiselle si. Seck Seck. day xaar. léegi rek incha allah. wala gars yi dañoo ñemewu. waaw ñemewuñu. gars eh, yi ñemewuñu. kenn ñu kenn fëggut porte kenn defut dara ñoo ngi fëgg kay xaar ku baax allah ah, kon kay gars yi nañ la yow yow yow pare pare naa sax dama bëgg xool bu baax rek allah hmm? mais aysa mi lay ressemble ak aysa mi ñu lay nuroo waale aysa mi nga xam ne moom mooy ñaareelu Baye ñu la koy nuróole euh, tey euh, naka nga ni muy ak mi nga euh, di borom këram ndax jël na ay ay teranga yu bari indi ko ci kër gi jàppale ko ki nga xam ne moo di jëkkëram aysa ah, de moom tellement tellement tellement mais xale bu yaru la mais aussi gis nañ teraanga ndox yi doon naan yëpp Aïcha Aziz lañ si bind bu souhaite un bon lañ si bind voilà. mais foo ko doon dénkaan en tant que jigéen ah, lan nga koy dolli. ah mu gën a téye bu baax rek gën a sëy xam ne voilà quoi am na jëkkër bu baax macha allah jëkkëru njëkkante. Mm-hmm. mais Ndiaye ñaareel la fi xew de mbaa bëgg nga nekk ñaareel. déedéet mënumaa bokk. mënoo bokk déedéet waaw ah, rek. tëj fépp pat fépp. man kase man dong. mais xale bi féroce gu gitu ci nekk ci yow. ah yàllaa ko def ce n'est pas les marab. non non sëjja. yàllaa def loolu. yàllaa dogal de. te moo bind. bind. bind nga jongoma allah. merci waay. mais war ngaa mën a fi mu toll nii ñu waxaale xam nga nga am borom kër jaagar jaagar comme ñaanal ma rek ñaanal lu jot ginnaaw genre yu mel ni yéen a mën a dàqee. ah hmm. nga gisee bernde yi yi nga xam ne Aziz Ndiaye koy wàcce ci suuf ak li nga xam ne moo di teraanga yi depuis lors ba nga ñëwee ci kaw ba léegi naka nga gisee li nga xam ne mooy nekkal waaye. Ah, comme li ma la waxoon sànq rek ñun moom manqué ñu dara dara dara dara allah fekkee lekk ñoo ngi lekk ba suuf di naan ba màndi comme ni ma ko waxee sànq rek. nga xamne aussi modi biti ñepp xamé ko mu nekkon doon jeu li nga xamne modi série di ñaarelu bay mom tamit ñew ci famille ñay bi ah, tay xamna ne donte xamantewu men mais jigen nga muy jigen naka nga ko gisee mom tamit mu ñew ci kër gi ndax fi doon ci kër gi nga bok ndax invité ah biti man bu ma ñëwé tay gisuma ko mais mom aussi jigen bu baax la bu yarul am jigen ñu ñepp baax machallah première dame nak ki nga xamne neena la euh, moy madame la classe ki nga xam ne waaw noo ko tuddee. Michouchou kooku la Michouchou. moom la la xale bee jóge la plus am classe nag. moo am classe nag. moo am valeur. moo am valeur moo xam boppam. moo moo bëgg ki nga xam ne moo di Aziz Ndiaye. loolu yëpp moo ko def moom la de. waxal ma ci moom tuuti. ah comme li nga wax ak yow wax nga lépp ba pare. samay wax laa wax yow samay wax. déedéet yëpp benn la. li nga wax man beneen côté laa waxee xam nga man dama koo gis nii rek mais yow au moins mën nga wax tant que jigéen. waaw man li nga wax laa bëggul wax moom macha allah miss moom zéro faute. zéro faute waaw zéro faute. boo koy dolli loo koy dolli. mu gën a jàpp rek moom tamit bañ a bàyyi dara waaw. xale yi nga xam ne ñëw nañ ci ginnaawam tamit mu war leen uuf te xam nga ne miss jàmbaar. waaw na ko uuf dana uuf ñoom ñëpp ku ñëw mu uuf ko. Ndiaye neex na de. waaw. waaw. neex na. Kalau udah min nekete barkir tollay mais xola hola kan dia ciri ini, kalau biar bi ya jongo ma ay merci merci beaucoup à la prochaine troisième nak nga fexé ba nga woma ma gis bul wax dara xam na tejju kay bi befa befa borom parcelle waaw unité 14. unité 14. waa jërëjëf kontaan naa. waaw vas-y Baye man kontaan naa. kii mooy sëñ bi de barkal ko suñu c'est bon kontaan maa ngi nii si kaw yéen eh, a. مع الآل والأسباب ما زال الشارحون رب لا إله وما خال داميا إلهي لسدتي رب لا إله إلا أيامهم

Baba Kansi Jalna Nakuti Tirni Ulusi घर से चलता अनंतपुर जुटाई आने गए के घर से चलता घर से चलता रेना कर से चलता

سمجھو مانی بكر زجرنا وإنني قد كنت من أهل النار ومسكني Mama. خالدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف الملائك بشرت إليك أكوف بتفاني يتلقنون صلاتك الحزن التي ما بعدها للجنس بالغربان غربان والحور من بين النوافل في الإمام متفردات فيك كالولدان وعليك برد كذاك محمد في النوم الواجب وفي الإعلان وبوجهك الصافي بوصف باين من قال أم الكتاب بقلبهم نوراني أنا سوري سيد شيخ يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك مدحة الأدفان يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفقراء بلماني يا سيدي يا سيدي يا سيدي جزاك ربك عن بني الأوجان يا سيدي يا سيدي أم الكتاب بقدها الدوراني ثم الصلاة على النبي وأهله من ربه في ربه الحنان ما قال أحمد التجاني المرسدا فإليك يا ابن محمد ناداني مولم لي من نونا من تيال مباح جنو بجاي ابتنان ak Seexu Tijaan ana taalibe Seex yi def leen nii wala wali man naa naa leen te yàlla bu baax gannaaw ba jaayante naa ak sayxu tijaan yéen gaa yi seex yi xanaa lii doy na ndegte xanaa lii doy na tegte xanaa lii doy na yaakaaru soom yoonu tijaan yaa sayxu ahmadu tijaan ibni saalimiin te fay di dénku la prophète waa di nomaana te yëpp ya ci guddi rasulullahi te ba tey gisalu ma waaye nee na bu gàmmu gi dana fexe nga gis rasulullah mbokk yi asalaamaaleykum. maa ngi ñaan na ku nekk akolaat ki mu dendal ne ko félicitation. Eh, rapaziada do Recolheu o Arthur no distância. guddi gii nu nekk mooy guddi gi gën ci guddi yëpp waxtu wi tembe ci la Aminatu bintu Wahbin doon yëg matu mbokk yi waxtu wi ci la sangu àddina ak alaxira doon waaj a àddina te mooy Sayyiduna Muhammad كاميرامان لا يمتوش ناخ مان داماي خال وقت لي سلا امنه دنيا ما يا حساب لي دي واجه ماكو كان لا دون ماكو محمد رسول الله كي جيم سي لي يالا بن موي سيدنا محمد six oh bi Seydina Muhammad naree judd bëccëg dañu yàlla dimbali ma mu judd ci sama heure guddi demandé yàlla ne ko dimbali ma mu judd ci sama heure ndax bu juddoo ci guddi guddi na la mën a tiitaru ci bëccëg bu juddoo bëccëg ngeen séddoo moo tax Seydina Muhammad gane àddina fajar moom rek lañ mës a ëmb ba àdduna sosoo ba tey mu nekk ci biiru yaayam commence yaay ji ni ko yaay mu ne ko waaw mu ne ko heure sàngam lay jot ku dul yonent bi amoo Amina mu ne waaw mu ne ko waajalal sa bopp fajar lay judd waaye attention demal nga seet si fu ñuy wax safa moo la war a réewle ànd na ñëw fekk safa toog mu ne ko bul teel tëj sa bunt lu mu guddi guddi danaa la fëgg ndax heure tel am doom mbokk yi Amina neena yebuma metti samay tank diisul takasira wa subhanallahi bukratan wa asila sama alaaji Malick tollu ci waa woon ne boo ma netti ma nettali la scénario Serigne babakar Si mamu Serigne Mansour borom daara Sidi fagay dem ba ma ca jawaar juddo gaaya yaro gaaya jange gaaya bàyyi fa gaaña raw gaaña installé Tiwaawan di wax lu kenn dul dindi buñ la laajee kan la nel mooy bàyyi Serigne Babacar Sy waaw ma ni ana taalibe Cheikh yi rasulullah judd judd rek sabbal yàlla indaale turam ba pare indaale turam mbokk yi Amina mi ko ëmboon yàlla ni ko boo nettalee benn kéemtaan ci kéemtaan yi ngay gis ci moom adduna tukki ci sa kaw mbokk yi Seydina Muhammad juddu ci fajaru tey tàllal baaraamam ya joxoon baaraamu sànnikaayam ba xam nga lu gën a yéeme mooy ronjoon màkk bi mu amee deux mois. amala xusul bi yàlla amu amal fatxi war raqam yi ñu naan El Hadj Malick ni ko ndax Amina bi muy am doom fekk na fa Abdoulaye Maodo mi fekk ko fa xadaa bi abwaa Abdoulaye xiina mada shahraani lil xamli mada azharul kalimi بعد علاج مالك نكو بابا نعمل مل من يوم يحين إذن أعلى النساء شرفا ونسبة وافتخارا من جدودهم من بعد علاج مالك نم نجل مكة دون دخي من أبو دان دخ دين لكي بانت علاج مالك نينا رسول الله بمي أم دموا نكنا وخبان أبو نبو كتن دوتون كن تكو كتون مبال من بعد علاج مالك ينمتبي نم نتعرى ملون علاج مالك ندقل المواخلة كيال نبين بغي ستارا بناوكو بو بيسون خار كان مجرم مكة فاتحو